bëggoon a ñaan Alsaan rek mu wax ko gars yi ne bu ñu demee nañu dimbali lion de la teranga bi nañ ko teg fee nañu dindil moo teranga bi dafa ñu ay lion féroce. li ko ni ko Macky Sall waxee woon chef de l'État bi mu xam nga bi Coupe d'Afrique wax na leen ko a <laughs> ko teg indi les lions féroce. ba pare yaa ngi koy wax léegi di réconforter li ngay wax ak li li euh, Cheikh Ndoye wax ak li Alsaan wax effectivement Cameroun pour nga gagné ko il faut nga am courage. Ah la rage de vaincre l'abnégation et mouiller le maillot tout le monde sait que Afrique seen football amul espace football africain dafa physique dafa athlétique dafa metti très physique ouais. très physique par rapport boo joué Ligue des champions boo ko seetaan wala nga seetaan championnat yu mag yi da ngay bi day am espace jeu day am plaisir mais africain bam bam bam bam dañuy dal xeex rek ba mu jeex mm. donc match amical bi Sénégal def ak Cameroun jox na leen tuuti benn vision xam nañ ne physiquement ni ko Alassane waxee Sénégal am na lu lu pare bu ñëwee dañuy jéem a contrer ci loolu. te beneen bi ce jour la doo leen xàmmee. Cameroun Coupe d'Afrique doo ko xàmmee. bu yoroon équipe bi gën a baax sax wala bi gën a bi gën a tekk ci suuf. dañuy joxe. là il te faut courage abnégation la rage de vaincre. pour mouiller le maillot. pour nga mën leen a gagner et surtout boo waree garder titre aussi.